nuyu naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse til sa kaasu kafe nga guux bu ngoonee bala ngay naan ma wax la xew ci réew mi réewum seen doom di dëkk ca bitim réew France yëglekaay bi ne ma ngay wóoca turu Souleymane Les Échos yéenekaay ne la mu defa am écho doy na waar yéeme na ëpp na tool moom Souleymane la mu defa doy waar moom Souleymane faat na jabar ja moom Souleymane faat doom ja yëglekaay bi ne nekk ak ñoom ci biir néeg bi laa la wax di fanaan ak ñoom fukki fan Les Échos yéenekaay ne di jour la def ak néew bi ci li nga xam ne moo di kër gi di tëdd ak ñoom di fanaan ak ñoom te kenn yëgul li xew faat na leen laa la wax ba mat fukki fan nit ñi soog koo yëg est-ce que mbaa yëg ngeen ne la nga xam ni mooy naawal avion yi yëglekaay bi ne carburant ba laa la wax waaw kérosène ba nga xamante ni moom lay utiliser yëglekaay bi ne moo gën a jafe doom ju ci réew mi de le thème yéen a kaay quotidien yéen a kaay seen xalima laa la wax càpp bind ci mbir mu nu mel ci ñàkk gi nga xamante ni yëglekaay bi moom la aéroport bi ñàkk kérosène bés bi le jour ne li xeeñ ni neexuñu ñaari semaine laa la wax yëglekaay bi ne bu nu wattuwul moom lañ nar a toog du ñu am kérosène te kat yéenekaay bi ne fournisseurs yi yëgalal nañ leen ko de waaw avertir nañ leen tolloog un mois moo yénn yi ndax tayef la bés bi le jour yéenekaay ne xaw ndax tayef la am déet waaye importateurs yi laa la wax nangootunu benn yoon bor bu di tegu ci ndoodum état ànd ak moom jëmale fu kenn xamul na ma ni importateurs yi laa la wax bañ nanu lànk lañ def ba kandaar nee ñu jamono wër laa la wax di circuler ndax législatif yi ay dee bee laa wax fi mu jëm nii ci jafe-jafe yi mu nekk nii alerte quotidien may sa baabu yëkkati na ci kàddu nee na soit mauvaise gestion lay doon waaw yëkkati xaalis di caxat-caxatee fu la neex nga jëmale wala trésorier yëpp ay dee bi waaw ne ci ay jafe-jafe laa wax maa ngi xat-xat boo yoree xaalis bu ñëpp bokk da ngay xam noo ko téede vox populi yéene kay ñëw ni ay dee bee nee na mi ngi wax laa la wax compagnie yëpp sa ko war a dëppal carburant ba waaw lu ngoy xam na ko boote doomam tey mim réew yëglekaay bi ne dem beeg dikk bi ci biir réew mi laa la wax ami jafe-jafe dem beeg dikk bi ci bitim réew nara ami jafe-jafe bés bi la suura ko xam le réew mi kay nee naa la màggetum cent dix ans la foo laal rek muy mette ka na ko na ji foo bés mun la at dom bësal fépp ay mitti fay mitti ba naga nii yëglekaay bi ne mooy wàllum wér gi yaram gi laa wax santé waaw fi toll a ñoom dong gerewuñ de ba ci ñi nga xamante ni ñooy jaay garab yi di pharmacien yi ñoom itam dañoo bëgg a gerew ni ki le 22 gi nu jëm du daw jëmati ca libération yéene kay na muy indil ñu waaw beneenub kaa la wax boo xamante ni moom it ndaw si lay dafa am ay jafe-jafe jëm ci wàllum accouchement bi nga xamante ni moom la doon am ci hôpital ban hôpital nay leer hôpital ba hôpital si ngeen soor lay wuyoo yëglekaay bi ne moom Mariama mi waaw 24 septembre 2020 ñu par benn ba jeex tàkk moom ci jëmi boppam laa la wax ma nga àgg ci taal ba 9 heures dugul laa la wax ne ci biti ne ci ne ci biti ba 19 heures ëpp lawu kenn assisté wu ko laa wax ngir mu am doom ñaari sage femme ya nga xamante ñoo nekkoon garde war a wax ak moom ña nga woon ca whatsapp ba eh waay ndaw samba di wokkaal ndaw si lam fa dund metti na de ma ni la muy dund lu mu metti metti yemul foofu laa la wax ndaw si ci jëmi boppam ca bolog ba docteur ba mu fa fekk laa la wax di wax ak moom waxi ñàkk teggin yu ñàkk fayda yu soof yoo xam ni yëglekaay bi ne yemul foofu de te naa ko man fi ñu toll nii sa jot lekki laa tal cim cim a indaalewul bakkan waaye ñett ya nga xamante ni ñoo mucc indaale bakkan noonu lañu faatoo benn par benn par benn par benn ci ay gëti jëkkëram ëpp low ay waay lii maintenant ba yegg ci lool laa la wax lool ba mel ni coow lu amoon ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye yëglekaay bi ne famille Omarienne ba waaw ñoo jóg de wax na nee nañu li ñu bëgg mooy ñu ubbi waatal leen seen maternité bi direct news yéenekaay ne ba tey hôpital bii di hôpital Dantec laa la wax ba tey laa ma ngay geesu njiitum réew mi président Macky bi ne monsieur le président sauvé Dantec ndax wopp la lef laa la wax fi mu toll nii tembe bâtiment ya yu bare bare nga commencé na sax ci biir équipement ba des na ma ni ba ci condition ña fay liggéey laa wax yëglekaay bi ne ci ñàkk rek tiis la ne moom kay hôpital bi na mu mel laa la wax na mu nekk metti na ba àgg ci lool waaye li du ngeen ni lool tribune yéen kaay lool la na meerub Koccaali meerub Valla ak meerub Njabel yëglekaay bi ne ñoom ñëpp laa la wax xaan nañ maa sa booloo wu ji ñaar ñëpp nag ay maire opposition bi lañ yëgle kaay bi na ñaar ñi ca wàllu lañ nekkoon ka ca sa yowee askan wi la neen ñooñu ma la limal ñëpp yëgle kaay bi na ànd nañoo ak njiitum réew mi président Macky doora ji bare bari la yëgle bi di Thiès Info moom la président Macky Sall dara am laa la wax ci élection législative yi nu jëm ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ndax booloo gi nga xamante ne moom lañu ñu booloo seen biir ma ni démb laa la wax ca daje ma nga xam ne moom la Marème Diop Sylla woote woon askanu Thiès kaay ñëpp a bàbbeeku wuy si yëgle kaay bi na autorité yi laa la tax askanu APR askanu réew mi ñëpp ànd maase booloo doon benn ni njiitum réew mi yaanu moom mouvement religion émergence yëglekaay bi ne seen njiit di Omar Dem ne lii rek koy faj laa la wax njiitum réew mi président Macky Sall bu bëggee am dara ci Thiès na dajale mbooloom lépp doon benn laa la wax ma ni wax ko ca kaw laa la wax félicitation waaw Adja Marème Diop si la bu doon pari bu ñu réussir la xamal ni réussir na ko laa wax ndax démb laa la wax ñoom ba ci morgey sopp na bi yëglekaay bi ne na ca événement wax ubbi ay loxoom ubbil ko waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ginnaaw bi mu recevoir ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Dieye waa Thiès laa la wax neñ na recevoir Mor Gueye 24 heures yéen kaay ne waa Habib Niang nag moom kenn demul ma des de ndax 22500 signature la dajale laa la wax ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar jigéen ñaa nga ca wetam góor ña ca wetam alerte quotidien ma ne jigéen ñi laa la wax ak jeunesse bi ñoom ñoo ne Habib Niang ew waay Thiès kaay kay laa la wax info waaw mbuur yëngu na laa la wax ma net salaam yëngu na ka ko yëngal di soxna Aïda Saliou Thioune yëglekaay bi ne ndogu la mu teg laa wax ndogu laa wax kenn mësul gis ndogu yu ni mel ay ndogu yi giléem pitax ba ci fiiriir bàyyiwul dara témoin yéen kaay ne maa koy témoin waaw ndax kan ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ñu ànd ak soxna Aïda Saliou Thioune yëkkati nañ lu tolloog cent teg ko ci loxoom ak ñetti frigo laa la wax ak yeneen i millions yoo xamante ne ay tawasulu laa ki àddiya bàyyi mukk ndax sëñ Béthio ñoom nee ñu laa wax dañ koy topp ba faaw ndax seen ndigalub sëriñ lañu topp sëriñ Béthio Thioune jaamub sëriñ Saliou moo leen digal ni ànd leen ak moom nee ñu faaw ñu ànd ak moom ba faaw di ko liggéeyal yëglekaay bi ne 17 avril bi laa la wax ca liggéey ba kaamil la ñu xëyee laa la wax lan fa jàng ci ay kaamil kenn xamul lim nu mu toll soxna Ayda mi waaw fu daan mas di yóbbu ay berndeem ci àjjuma rek ci daara nag di nga wàcce lu ëpp ñeen fukki kaamil yëglekaay bi ne jagleel ko bisub 17 avril bii di daje sëñ Saaliw ak sëñ Béthio ca bis ba laa la wax ay kilifay diine ay mbàkke-mbàkke ñëpp a nga woon ca bis ba stade yéene kaay bis ni ki tey ji laa la wax la askan sunu gaal di xam ay adversaire am ci éliminatoire coupe d'Afrique 2023 bi la yëglekaay bi ne Sadio Mané waaw mani la ñuy wooye ballon d'or laa la wax mani jigéen na ko lool laa la wax ballon d'or baa ngi koy xeeñ de moom Sadio Mané ndax wone gi nga xamante ni moom la wone ay jaloore ak dëggal boppam gi mu dëggal boppam laa wax baax ew eh, waay ndaw sàmba Sadio kon boo tëddee nelawal sunu làmb ne kani rëg-rëg terewu koo nelaw kooko ko Thiès lay wuyoo dafe wuta daan la Sa wax rëg-rëg amul benn sens ci bii di waxi Sa Thiès teg te ni je attaque je cogne et je gagne ew eh, waay ndaw sàmba ba booba ba booba sëy latir ba booba bësal ma clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon seen revue de presse wolof ak Fall Damel jaakin Joof waaw mbokk yi nag maa ngi leen a baax a ngi may teewlu moom café gi dama xelli rek euh, su ma ko xellee rek daal di koy tasaare te mboole seen koo xamante ni yaa ngi may teewlu euh, ku lim juuma euh, waaye du ma juum dama dul matal ndax yéen samay xarit ngeen samay waaye ngeen ba tax na kon café gi xoolal na ñëpp naan ba simbu leexu bu kenn manqué na ñëpp naan ba simbu leexu ñëpp ñëpp laa la wax nañu naan a naan ba simbu leexu mais waa ji faat jabaram ak doomam dix jours soog a feeñ dëkk ñoom dix jours ay néew waaye loolu duñ ci wax ah! merati naa sama xol bi jeexati na tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk ba suba ak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf.